salaamaaleykum man la Cheikh Talif maa leen di indil lu baax ci yéen lu am solo ci yéen li nga xam ne kum rëcc ruux nga siiru kum rëcc li euh, nga xam lu rëy rëcc na la gis nga montre classe moo ngi nii montre classe yi ku ko bëgg montre yi nga xam personnalité yi moom lañ bëgg boo ci bëgg nag ak lu man di jar ci euro rek mën a nekk boo commandé même pas une semaine waxal marque bi nga bëgg ñu indil la ko ba fi na nekk euh, jaasik online mooy indi montre yi jële ko ba bitim réew montre góor ak jigéen yépp mën nañ ci am montre classe lay doon yoo xam ne ko foo ko macha allah jàmm rek ngay am euh, boo wees am montre yi parfum gis ngeen parfum classe yoo xam ne que ku ko am di nga bàyyi yi nga doon utiliser ku la jege bàyyi yi mu doon utiliser ndax lan jël yi di ko utiliser parfum la nga xam ne góor ak jigéen mag ak ndaw parfum boo xam ne que da ngay sangu mu tëlaa bàyyi nga sangoom njàmpet mu tëlaa bàyyi nga nelaw yow mu tëlaa bàyyi kon wuti leen parfum yi Diassigui online xaaral ma jox leen numéro bi Diassigui online euh, ak Tektal TV benn la ni doon defal 77 190 83 18 dinaa la meer foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit bët yi neexul ki wax ci saal bi mu noppi ki dox ci benn mu dugg ci biir numéro bi ëpp naa bañ am 77 190 190 83 18. beneen bi vingt 78 525 87 61 525 87 61 Diasig online ku bëgg montre bu baax wala parfum yu baax wala lu marque bu baax jokkool ak ñoom Snap bi Diasig online euh, WhatsApp bi Diasig online TikTok bi duggal foofu yépp foo dugg di nga ko gis njëriñ rek nga cee gis parfum de classe yoo xam ne que góor ak jigéen mag ak ndaw ndax lan nit ki warul dugg ci biis yi nit ñi di mer nit ki warul taxaw loxoom di wét kon jokkoo leen ak Diassigui online ku bëgg parfum yu seer montre yu seer tabax am na luy seer te du baax de mais lii day baax te day seer catégorie boo bëgg nag mën nga mi nga bëgg marque boo bëgg ñu indil la ko xewal dikk loolaa ngi dakk Diassigui online kon bu sa càmm euh, doo jaay kenn mu naan càmm bu sa càmm wax dëgg yàlla loo jënd loo jaay rek gars yi dañ koy bëgg ba mel lu naan ko sa kon parfum yu neex dëppoog bànneex te doo xeex doo xuloo da sa xol sot mel nu weex foo jàpp foo romb ñëpp apprécier kon parfum yi classe marque classe marque bu man di doon da nga koy gis parfum de classe lay doon góor jigéen mag ak ndaw mën nga ko am ci jaasik online snap bi jaasik online mi ngi noonu ñu bindal leen euh, whatsapp bi mi ngi noonu jaasik online fu mu ci man di doon ak tiktok bi nga gis ko montre classe yaa ngi nii ñoom sëñ Abdoulaye Diop xaas ak Cheikh Baara Ndiaye ak gaa yëpp ñu ngi ciy commencé di jënd ak tamit euh, nu mu tuddati Ami Guèye soxna Ami Guèye mu sëñ Baara ak euh, a AA 10 Ami Rabo ñëpp daal ko bëgg ci kii rek montre yi ngi pré isaar jënd na ci kon xewal dikk loraa ngi dakk numéro yaa ngi noonu romb rëccu yéex ñàkk boo bëgg ñu indil la ko ak GP yi te ku jub la jàmm rek nga am jaasi online yëngal nga réew wala sa taalif maa leen di indil lu baax ci yéen lu am solo ci yéen li nga xam ne kum rëcc ruux nga siiru kum rëcc li euh, nga xam lu rëy rëcc na la gis nga montre classe yi moo ku ko bëgg montre yi nga xam yi moom lañ bëgg boo ci bëgg nag ak lu man di jar ci heure rek mën a nekk boo commandé même pas une semaine waxal marque bi nga bëgg ñu indi la ko ba fi nga nekk euh, jaasig online mooy indi montre yi jëlee ko ba bitim réew montre góor ak jigéen yépp mën nañ ci am montre classe lay doon yoo xam ne ko foo ko natt macha allah jàmm rek ngay am. Euh, boo wees am montre yi yi gis ngeen parfum classe yoo xam ne que ku ko am di nga bàyyi yi nga doon utiliser ku la jege bàyyi yi ñu doon utiliser ndax lan jël yi di ko utiliser parfum la nga xam ne góor ak jigéen mag ak ndaw parfum boo xam ne que da ngay sangu mu tëlaa bàyyi nga sangoom njàmpe mu tëlaa bàyyi. nga nelaw yow mu talaa bàyyi kon wuti leen parfum yi Diassigui online xaaral ma jox leen numéro bi Diassigui online euh, ak Tektal TV benn la ñu doon defal 77 190 83 18 bi nawet meer foofu bu dee mënul bindal boppam bi tamit bët yi neexul ki wax ci salle bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir numéro bi ëpp naa bañ am 77 190 190 83 18 beneen bi 78 525. 87 61 525 87 61 Diasig online ku bëgg montre bu baax wala parfum yu baax wala lu marque bu baax jokkoo ak ñoom Snap bi Diasig online euh, WhatsApp bi Diasig online TikTok bi duggal foofu yëpp foo dugg di nga ko gis njëriñ rek nga ciy gis parfum de classe yoo xam ne que góor ak jigéen mag ak ndaw. ndax lan nit ki warul dugg ci biis yi nit ñi di mer nit ki warul taxaw loxoom di wét kon jokkoo leen ak Diassigui online ku bëgg parfum yu seer montre yu seer tabax am na luy seer te du baax de mais lii day baax te day seer catégorie boo bëgg nag mën nga mi nga bëgg marque boo bëgg ñu indil la ko xewal dikk looraange dakk Diassigui online kon bu sa càmm euh, doo jaay kenn mu naan càmm bu sa càmm wax dëgg yàlla loo jënd loo jaay rek yi dañ koy bëgg ba mel lu ko sëta kon parfum yu neex dëppoog bànneex te doo xeex doo xuloo da sa xol sot mel nu weex foo jàpp foo romb ñëpp apprécier kon parfum yi classe marque classe marque bu man di doon da koy gis parfum de classe lay doon góor jigéen mag ak ndaw mën nga ko am ci jaasib online snap bi jaasib online mi ngi noonu ñu bindal leen euh, whatsapp bi mi ngi noonu jaasib online fu mu ci man di doon ak tiktok bi nga gis ko montre classe yaa ngi nii ñoom sëñ Abdoulaye Diop xaas ak Cheikh Baara Ndiaye ak gars yëpp ñu ngi ciy commencé di jënd ak tamit euh, nu mu tuddati Ami Guèye sax na Ami Guèye mu sëñ Baara ak euh, AA10 Ami Rabo ñëpp daal ko bëgg ci kii rek montre yaa ngi Père Isaar jënd na ci kon xewal dikk loraange dakk numéro yaa ngi noonu romb rëccu yéex ñàkk boo bëgg ñu la ko ak GP yi te ku jub la jàmm rek nga jaay si online yëngal nga réew